mbokk yi ñuy euh, seetaan maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax nuyu suñu mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan ci MTC seen bi nga xamante mooy seen bu mag bi di leen jagleel à chaque fois le meilleur ci ay euh, thématique ay émissions yoo xamante ay thèmes yu am solo euh, bi di ñëw donc ñu leen di andil yi nga xamante ne yu am solo la diversité laa leen di andil diversité boo xamante ne dina am ci plan yëpp ah, am ci plan bi nga xamante ne muy politique dina am ci plan culturel dina am ci ci plan bi nga xamante ne muy société donc plan yëpp yi nga xamante ne tey ñoxal na askan wi donc si la ñëw pour euh, waxtaan ak yéen comme d'habitude nag damay am bi nga ne mu ngi koy joué rôle bu am solo ñëpp xam nañ ni mooy euh, Cheikh Omar Diop nuyu naa la ziar bi. maa ngi lay fay sëñ Thiam. Mm-hmm. di sant yàlla bu baax di amaat mbégte ci jàkkaarloo ak yow bokk yow plateau. Mm-hmm. wax aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani mm-hmm. rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa laddallin amin mm-hmm. allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatihi lima wax liqa walxaatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq mm-hmm. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا أحمد الشيخ اهدنا بهذا المهدر والتحت في بنصر التحت لنا السفر ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hmm. sëñ Thiam maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi ak téléspectateurs hmm. yëpp téléspectatrices yëpp ci di nuyu kilifa yi ñi nga xam ne nekk fii ci diine islam fii ci réew mi hmm. di nuyu kilifay aaday réew mi ci sénégalais sénégalais fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew mhm. ñu ngi lay jox loxo lislaam te nuyub islaam te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam waaleykum salaam ah à chaque fois ko ni mu koy waxee mbégte la ñuy am buñ ko daralee ci palaato bi ci xam-xam bi nga xamante ni à chaque fois bu génnee rek dañ ci am façon jàngat bu nekk te loolu am na solo kon ni mu leen ko waxee nag ci euh, nga xamante ne muy MTC euh, donc gaaw ngeen abonné wu ci en masse donc képp ki nga xamante ne abonné woo da ngay gis ni vidéo bi gaawal nga daw nga wu ci nga activer cloche de bi boo activer cloche de notification bi bëgg nag ngay aimé di partager suñuy vidéo parce que vidéo bi à chaque fois da gis ñuy waxtaanee li nga xamante ne lu am njariñ la kon ni ma ko waxee léegi dañuy touché volet yi nekk volet société baa ngi fii volet culturel baa ngi fii volet religion baa ngi nii sport bi sax dinañ ko touché donc lépp li nga xamante ne soxal na leen ci MTC bu la ñëwee di nga ko gis te en plus euh, dina am euh, ay émissions yi nga xamante ne yu doy waar la xam nga bu da ngeen doon gis ci télé yi wala ci yenn rajo ñu leen defal émission free gént di leen faylo mais bi pas da leen andil innovation bu bees tàkk di leen andi une de temps boo xamante ne une heure à ñu leen di defal free gént fii ak ki nga xamante a di poser seen question en avance muy seen free gént mais nag comme ni ma ko waxee tey dañuy ñëw ci wàccaayu tabaski bi mais balaa may ñëw ci wàccaayu tabaski bi sëñ bi bu ñu nee tabaski luy tabaski. tabaski sunna la. sunna la. suñu maam Ibrahima. Hmm. ak Ismaayila. Hmm. foofu la tabaski soxee ko man dem naa ba fa fan tëraloon maam Ismaayila. ca Màkka dem naa ba foofu. ba nga demee foofu loo yëg. Eh, kéemtaanu yàlla ñaari jaam yu gëm seen borom. ndeysaan. diggante doom ak wajur ni mu neexee. Hmm. yaa ngi dégg. Mhm. nga tëdd nelaw gént. waaw la rayal sa doom nga yeewu rek pour pratiquer loolu. Mhm. ndax maam Ibrahima dafa tëdd nelaw gént yàlla ne ko na rey maam Ismaahila. Mhm. yeewu ndax yonent yi seen gént wax yu la maanaam waxi borom bi la. wax la. moo tax li sànq nga wax ne dañuy firi gént. impact bi gént am dayoo bi gént am. su ko nit ñu xamoon képp ku yeewu boo géntee da def tout pour ñu firi la ko parce que c'est message. bu ñu hmm. envers toi. bu ñëw dafa concerner sa vie. d'accord dafa am impact ak sa dund. Mhm. képp ku tëdd nelaw gént ca obli obligation. nga xam li nga. lan nga gént am la ko. Hmm. bu laajee nga fay sax nga fay. ku ñëw firil la ko pour ñu firil la ko ndax au temps. Mhm. nit bu géwéntuwaan ñu ne ko bi nga fi nga gént yaa ngi Dakar. waaw. ki koy firi mu ngi Tamba amul benn moyen pour dem fa. Mhm. da nga daan gis ñuy war wala ñuy tukki di dox pour dem Tamba ci benn firikati gént. mu firi leen gént pour gént pour ñu ñëpp si waat ndax gént bi mën na la wax sa descendant maanaam fi nga li nga war a jur. Mhm. sa orientation orientation famille familiale. sa famille sa famille lépp fu ñuy mujj. Mhm. gént mën na la ko wax. sa vie sa dund fi ngay mujj sa carrière. gént mën na la ko wax. macha boo géntee. am sens ku la ko mën a traduiral mhm. te obligé nga dem ci moom mu traduire la ko. macha allah gént xam naa bu ñuy ñëw ci firi gént. gént loolu loolu dinañ ko leeral dinañ ko leeral. dinañ ko leeral tabaski comme ci la wax. waaw te tabaski eh, ni mu toll ci àddina yëpp ñu koy pratiquer ci islam. Mhm. mu nekk une fête nation une fête internationale. internationale fête la boo xam ne àddina yëpp koy pratiquer surtout nag ujaa ji nga xam ne. Mhm. ñoom ñoo dem di aji màkka ñoom la ko yàlla gën a tànnal yàlla moo ko yaatal fa mu nekk yërmaande jullit ñi rek mhm. mais ñi aji màkka ñoo ko moom ñoo ko moom ñoom la yàlla defal taraanga mhm. di leen dalal di leen berndeel ngir aj bi aji dëgg la léegi nag tabaski yonent yàlla ismaila ak yonent yàlla maam ibrahima mhm. bi mu géntee yàlla ne ko na rey maam ismaila oh. maam ismaila maam ibrahima ne ko sama borom moo ma wax ne naa la rendi naa la rendi mu ne ko su dee sa borom moo la ko wax rek amul problème man d' accord naa je suis loolu gëm-gëm la yàqin foofu am yàqin ñaari yonent la te yonent yi ñoom ñaar ñëpp bokk nañ xam borom bi. waaw moo tax dimension nabiyu ak waliyu bokkul ak dimension nit ordinaire. waliyu yàlla bi fi muy toll ci boromam ak yonent bi fi muy toll ci boromam bokkut ak nit ordinaire. Mhm. moo tax maam Ismaayla amul benn crainte amul benn doute. ci li ko maam maam Ibrahima wax ne ko nag léegi di si d'accord mu tëral ko. mu tëral ko war ko rendi. ah mais foofu mu takk bëtam yi takk tànk yi mu takk loxo yi maam Ismaahila na ko tekkil sama bët yi tekkil sama loxo yi tekkil sama tànk yi man soo ma rendee du ma yëngatu sax ndax damay bañ nga takk ko sama borom foog ne je suis pas d'accord si li may proposé. je suis d'accord entièrement catégoriquement bul am benn doute. soo may ren doo am benn difficulté. loolu mooy gëm-gëm. loolu mooy foi. waaw wax. foi wax bu rabbaka xataa yatikal yaqin nga jaamu sa borom. waaw ba la ñëw ci yow maanaam. gëm-gëm gëm ci yow. mooy yaqin. yaqin yaqin nag moo gën a moo supérieur. Eh, mooy vrai liimaan mooy dëgg-dëgg foi. Mm-hmm. mooy dem ba nga xam ne certitude am nga ko. am certitude bi am certitude ci li nga gëm. Mm-hmm. foofu lañ foofu lañ tolloon ñoom ñaar moo ko maam Ismaïl xam xam nañ ne ki leen ko digal du leen nax mhm. te ki leen ko digal mooy yàlla seen borom mooy yàlla suñ borom mhm. te moom dañoo war a wéyal ay ndigleem moo tax amuñu benn dut ci loolu maam Ismaïl tëdd maam Ibrahima jël paaka bi tëral ko la ilaha illallah war koo rendi jël paaka bi dawal ci baat bi paaka bi rendiwul yàlla na Jibril ñaari jaam yële wéyal nañ sama ndigal demal nga jël xaaf xar nga xar ma mu jëlee xar ma aljanna indi ko ñu tëral ko rocc maam Ismaayila tëral fa xar ma xar ma lañu rendi xar ma lañu rendi ñu reen xar moomu ñu rendi nag moo tax ñu na def ko mu nekk na ci képp koo xam ne jullit nga bu tabas tabaski jotee ñu ne da nga rey xar bu fekkee mën nga ko bu fekkee mën nga ko bu dee am nga ko bu dee am nga ko mën nga ko am nga droit def ko mais boo ko amulee mënuloo ko yonent si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bés tabaski na rey ñaari xar ne hmm. bii pour man la bii pour suma umatu la sama xeet bi yépp képp ko amul tabaski tabaski tabaski naa la donc tabaski du farata sunna la tabaski du farata sunna la muy lu nekk loo xamante ne mu am na solo dañ koy contextualiser ñëw fii suñu réew jamono ji li des ci tabaski bi bareetul mais per de famille yi kenn nalawatul jeunesse bi kenn nalawatul boo xoolee sax li nga xamante ne xewoon na fii ci ay jamono dañ ne nañ arrêté lépp parce que tabaski baa ngi ñëw tey jii lan moo tax bu tabaski bi ñëwee pression bi nga xamante ne ñu bari dañ koy jël yenn ko seen bopp te comme ni nga ko waxee léegi tabaski sunna la. waaw xam nga mooy ñàkk gi ñuy ñàkk jàngal nit ñi islaam. Ah. ak dayoom. Mhm. ak ni ñu ko war a pratique pratiquer. boo xamee ni ñu pratiquer islaam doo am pression boo ko xamulee nag nga am pression. ndax aada bi ngay dund. ngay dund au lieu nga dund islam bi mais mhm. aada ma ngay dund ci kaw aada bi ngay dund dund aada ci biir islam bokkut ak mhm. nga dund islaam ci sa biir aada hmm. booy dund aada ci islam da ngay sonn waaw mais booy dund islam ci sa aada daf lay noppal dëgg la contraire bi la quoi contraire bi la important c'est ñu comprendre ko mhm. dund islam ci sa aada ak nga dund aada ci sa islaam ak ci ci bokk sa aada ci bokkul bokkul sooy dund sa aada ci islam da lay sonal que lu ñëw da nga koy yenu waaw mais booy dund sa booy dund islam ci sa aada loolu la sa aada teg islam ñëw na la lii du dara. Mhm. noppal la na noppal na la parce que boo yenoo tabaski yàlla na la sunna la. waaw sunna mooy loo xam na moo ko defee ñu bind la tiyaaba soo ko deful kenn la ci bindal bakkaar. mais est-ce que du tey jii ñi nga xamante ne muy société bi moo ñu ko xaw a impose ci benn côté je m'explique tey damay dëkk ak nit yoo xamante ne ku ci nekk bu wàccaay bi jotee dina jël xar yeew sa buntu kër. man maam ay njaboot am xale ku nekk naan la papa ana sama xar ana sunu xar tey loolu est-ce que doon benn pression de plus. waaw moom laa wax mooy mooy de bi. ak mhm. jàngale bi ñu war a jàngale waaw dëkkandoo nu ñu a moom ak nu a bàyyee xel. Mhm. yéen ci jàngale dëkkandoo nu ñuy dundee moom ba booy togg sax. waaw. dañuy bañ sax xeetu togg gi di ko dérange. waaye léegi de fépp ngay togg dégg. nga voilà lakk beeg. voilà léegi nag loolu nag. Euh, euh, culture bi ñu am ci Sénégal. Mhm. ñun ñàkk information wala bu ñu ko déggee tamit bu ñu ko defee. Mhm. moo koy indi mais l'islam prévoir na lépp bàyyiwul dara. képp koo xam ne julit nga da nga war a bàyyi xel sa mbokk julit mhm. danga nga war sa mbokk julit da nga xam ne ci sama mbokk la lépp lu koy gaañ waruma ko def moo xam ci alal la moo xam ci jëflante la moo xam ci communication moo xam ci comportement lu mënti nekk da ko war a sóoraale mhm. léegi nag su fekkee ne yàlla dogal nag am nga xar yow moom amul xar mhm. yow boo rendee waroon ko mën a dimbale may ko ci ndawal ndawal bi waaw bu fekkee ne seen relation mhm. àgg na foofu dëgg la su fekkee seen relation àggu fa tamit na def tout ba bu ko blessé ci sa xar dëgg la bu ko blessé mooy bul yow xar mi sa buntu kër gi di wane. ndax yeneen xale yi mën nañ nekk ay xarit ci koñ fekk seen papa néew doole te ñun loolu yëpp dafa jar sóoraale. dëgg la waaye laa bu fekkee te nga ko ci wàllu wërsëg ci wër wéccet tamit nga yónnee ko ndànk dem joxosu. ah léegi de gars yi def loolu dañuy xaw a ngistal nag. defal ko defal ko dara. waaw ngistal ci jëf ju baax yàqu dara. ah si jëf ju baax ñaaxul dara. déedéet Seydou Ibrahima Dias radiyallaahu anhu wax na ko. waaw nee na di defal ki di ko wal li ngay def li nga koy defal. mu ne dara newu ci. waaw léegi tey bu nekkee dañuy wax ne borom alal yi. dañuy wax ne borom xam-xam yi dañuy wax ne. Mhm. maanaam ngistal du yàq maanaam jëf du baax. Mhm. yaa ngi dégg bàyyi mu ne radiyallaahu anhu mu ne ngistal amu ci. ngistal amu ci. yàlla ngay liggéeyee. waaw. ngay wan yàlla li nga koy waaw mu ne loolu dara newu ci. dama gis kenn koo xamante ne exemple euh, dafa nekk ci réew mi. di sama xarit nag muy Ousmane Noël Dieng par exemple moom buy def comme li nga xamante muy opération tabaski day dugal vidéo yi ne lii dama koy jox askan wi mais day am ñenn ñi nga xamante par exemple dañuy ñaawlu naan euh, est-ce lay may yeneen exemple yeneen yi nga xamante ne peut dañ nekk ci réew mi nekk ay homme politique wala nekk ay peut-être euh, ay waykat bu lay may dara dañ koy sinab vidéo ko nit yi gis ko loolu est baax na wala wa man araada xifaa fa huwa abdu xafaa waaw waaye wa man lam yurid ilaa ma araada allaahu fa huwa abdullaahi xaqan mhm. su ma jumlee ci texte bi yaakaar noonu la waaw mu ne ki nga xam ne dafay def ngir ñu gis ko mhm. mu ne kooku mu ngi jëf jëfam pour lu gis ko rek macha allah mu ne kii jëf jëf jëfam pour ñu di nëbbatu mhm. mu ne kooku mu ngi jëf-jëfam pour nëbbatu rek mu ne kooku jaam kee jaam la ndeysaan kii jaam buy nëbbatu la mhm. mu ne waaye ki nga xam ne nag moom dafa bàyyi namu namu yàlla ci kawam mhm. lu yàlla gënal ci kawam ak lu mu atte ci kawam mu gërëm ko mu ne kooku muy jaamu yàlla xaqan ndeysaan muy vrai jaamu yàlla mhm. léegi nag kooku li muy jëf su fekkee ne da ngaa rafet njort ci jaamu yàlla yi da ngay gis ne sens propre bi ngay xoolee da ngay gis ne kon kii mu ngi wax ñi am di joxewuñu ne joxe baax na macha allah leen di fàttali ndax jëf yi. Mhm. dafay baax yéen nit ñi wane ndax fàttali ñi nga xam ne ñi gëm nañ yàlla ndax yàlla mhm. moo wax ci alquran ne. Mhm. Euh, nañ fàttali. fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. na ngeen fàttali ñi ndax fàttali dafay jëriñ ci gëm yàlla. léegi nag dafay ngistalu wala dafay jëf ngir fàttali. bi niyaati. wa innama la kulli imri in ma nawa bu fekkee da ngay jëf fekk sa jëf bi intention bi mooy compter te yow yaa sa borom yaa ko xam. ndeysaan loolu kenn du ci dugg. Mm-hmm. mais jëf yi feeñ yi mënut a ñàkk ci yu baax yi. yu baax yi macha allah yu baax am na yu nëbbatu am na yu feeñ. Mm-hmm. lu du du nekkul na lu lu lu ñu jëf lu nekk rek dañ ko war a nëbbu. dëgg la am na loo xam ne dañ ko war a feeñal. ndax ki mel <laughs> ni yow. Mm-hmm. mën a fàttaliku dem waaw loolu de am na solo boobu. waaw loolu moo tax nag soo ko xoolee ci sens boobu. <laughs> <laughs> donc ki nga xam ne nag moom dafay jëf loolu ba pare di ko feeñal fekk intention waaw mooy puukarewu waaw yàlla mooy def mooy compter foofu digganteem la ak boromam dëgg la moo tax jëf yi mhm. yow doo ko àtte da ngay bàyyi borom bi mu àtte ko borom mu àtte yow feeñu waaye jëf yi mën nga cee jël sa xalaat da nga sa position yaa xam waaye bul àtte macha allah ba léegi ñu ngi fi nga xamante ne muy MTC eh, di leen wax ni seen émission euh, seen produit euh, seen bio naturel Cheikh Omar moo ñu koy may donc di ngeen xamante euh, di ngeen gis fii nii yenn information yoo xamante ne na jàll ci bande passante bi pour yéen ne tey jii da ngeen soxla produit bio naturel yi boo ko defee rek boo leen wootee ci numéro yi leen mën a livrer lépp li nga xamante ne soxla ngeen ko en même temps aussi ñu ngi ci Facebook bi lépp li nga xamante ne soxla ngeen ko ci information muy maladie ah lépp li nga xamante ne da ngeen ko soxla ci wàllum faj bés boo leen ñu contacter ci Facebook bi pare di ngeen ci am lépp li nga xamante ne information yu am solo la ci bio naturel Cheikh Omar Diop alors ba léegi ñu continuer waxtaan bi tey bu ñu nee tabaski dañuy faral di dégg à chaque fois ñu naan yére bi gën a rafet ngay sol da nga war a solo ba mu rafet danga war a xeeñ lu neex parce que mbëtum feet la mbëtu mbégte la mais tey gis nañ ni dem na ba nga xamante ne pression la de plus ci pression yi ma doon wax parce que tey jigéen ñi ñu ngi waajal naan tey damay xool tuuti fu ma gën a seeree dem jëndi ko góor yi mètre jesner wala mètre yi nga xamante ne ñoo gën a seer ñu dem jëndi ko ah def seen ñetti abdu ba tax na mu nekk pression de police santé bi aussi c'est obligatoire wala santé bi comme ni ñu ko waxee nii rek dafa dañu war a santé mu rafet. waaw xam nga l'islam dafa am ñetti fête. waaw. muy fête tabaski. tabaski. fête korité. korité. fête juma. fête juma. vendredi. vendredi waaw. fête la ci islam. d'accord moo waral ñuy dem lu julli ñaari rakka ñaari rakka ñu def ko discours muy xutba mhm. léegi beneen fête bi muy korité moo waral ñuy def xutba gannaaw bu jullee ñaari rakka yi da ngay gis mu jullee ñaari rakka yi ba pare tamit dañuy defaat xutba mhm. donc loolu li mu nekk fête moo tax mu war a am discours mhm. pour ñu wax ak population bi comportement cité bi wax comportement réew mi loolu moo tax mu nekk fête léegi fête nag dafa nit ki bu amee dafa war a sañse waaw dafa war a sol a li mu nekk biiru bésu feet mhm. moo tax Seydina naa sallallahu alayhi wasallam mu koy jullee ci ci ci espace boo xam ne mhm. plein air la plein air waaw ñu mën a jullee foofu ndax mhm. bésu feet la dafa war a yaatu dafa war jigéen ñi nga xam ne dañoo am règle sax dañ leen wax ne leen permettre nañ leen ngeen ñëw ci bi mais bu leen julli mais ngeen nekk ci côté nekk ci côté bi ndax ngeen am ci tiyaabo yi ak ngëneel yi ak yiw yi ndax la même màgget bu feebar sax dañ la wax da nga ko war a sañseel solol ko yére doon dafa feebar dafa tëdd donc kon bés feet ñëpp war a sol solo yu rafet. Mhm. ñëpp war a sol li gën a rafet ci ñoom. Mhm. ndax feet feet islam la. feetu islam la yàlla dafa ne laa yukallifu laahu nafsan mhm. illaa wusaha. yàlla nee na teguma benn bakkan lu dut lim attan. li mu attan nit ah, ku nekk li la yàlla teg li nga attan la xool teg la ko. dëgg la. boo xoolee ñi nga kenn ku nekk rek. ni sa niveau toll noonu la la yàlla joxe sa wërsëg. dëgg la waaw ndax. yàlla moom moo bindee doomu aadama noonu. Mhm. waaye am na ñoo xam ne ñoom luñ dugg da ci ëppal. waaw luñ dugg da ci xabaabal. billaay da ngay jël yére bu war a jar nga war a jar jënd yére bu jar trente mille. ndax léegi yëre yi nga dem di jar waaw waaw trois cent mille. mais loolu sa soxla ngay réglé la say compte bopp ngay réglé. mais nekkul islam bi ñuy dund. mais l'islam bi ñuy dund daf la utal ay règlement utal la ay frontières utal la ay limites organisé la yow. mais boo demee nag tànn sa ay propre programme bopp. Hmm. mais yow sa programme bopp yaa koy wéetoo mais du islam bu ko indi ci islam yow sa programme bopp nga nekk. c'est important nit ñi xàmmee ko xàmmee li l'islam rëdd ak li nga rëddal sa bopp. dëgg la bu la fekkee l'islam moo la rëddal. Hmm. daf lay wax ne même boo amul tabaski. Hmm. yow wàcc tabaski wàcc na la. tabaski wàcc na boo lebee xar ngir tabaski amoo tabaski. boo lebee xar ngir tabaski. tabaski kenn ko leb. léegi bu ñu la mayee xar. baax na parce laa may xar nga am xar. léegi dañuy faral di wax naan buñ la mayee xar amoo tabaski. déedéet xar buñ la ko mayee sa alal la. luñ la la may nga moom ko sa alal la. loolu moom leer na moom. ku la xas may yaa ko moom. yaa ko moom. li nga xam moom nag moom moo sa alal bi nga dencoon te moo woon ko benn la. dëgg la amul différence. léegi des fois da ngay faral dangay faral di dégg am ñenn ñoo xam ne ñu naan euh, damay rey reyal samay waajur reyal sama soxna yow jëf ju baax moom bu la neex nga yéene ci àdduna bi yëpp yéene ci àdduna bi yëpp daf def lu baax yéene ci sa mbokk yi sa nga yéene si loolu ku la neex uh-huh. mais tabaski moom da ngay yéene li la yàlla wax na nga yéene tabaski ne yow yaa tabaski uh-huh. ñee yàlla wàccee ne la yonent yéene woon ne leen uh-huh. ca tabaski ba yow tabaski rek nga yéene sa tabaski parce que yow yaay tabaski ñee amuñu wàcc na leen wàcc na leen wàcc na yàlla dafa ko mu nekk farata lu nekkoon farata nag duñ ci duñ ko yenu duñ ko yenu sunna duñ ci sonn uh-huh. dañuy moom moo ko woyefal parce que ngir bëgg noflaayu jullit ñi waaw dañuy gis ba léegi ci télé yeeg rajo yi des fois ñu def ay jeux concours comme ci période bi ñu nekk nii woote leen bu ñu defee concours ñu génne tur xool ku ñuy may xar mais ñuy faral di dégg ñu naan bu nekkee da nga participer si concours yooyu tey jii amoo tabaski non bu fekkee ne nit ci dafa dajale xaram yu bëri di maye waaw nit ñëpp dajaloo waaw ku muy may. waaw mais bu nekkee def leen ne da ngeen di joxe dara wala da ngeen di jënd si sama produit sàngam. waaw wala da ngeen di dama leen di jox concours pour ngeen mën a sawar si sama produit yi. waaw loolu lislaam du ko nangu. d'accord mais bu dee am sa xale yu bëri. jóor hmm. leen. Hmm. nga bëgg a jox ñëpp. waaw te xa mënoo jox ku ne. Hmm. mën ngaa oo kenn ne ko kaay jëlal parce que nit ñi ëpp nañ xar yi. dëgg la te man mënumaa sànni ko ma neex jox la. te mënumaa sànni xar yi nag ñëkkal ñëkkalante leen ko. dëgg la dama koy organiser. su ma ko organisé ne xale bi kaay la nii ñëpp a yem ci xar yi. Mhm. kaay jël par benn nga jox leen. waaye bu ci namm mukk nag ngir publicité sa produit yi booy jaay. Mhm. bu ci namm tamit dugal sa marque produit pour ñu xam ne yow produit sànga moo mayee lii. Mhm. ngir sa produit dox ndax yaa ngi yaa ngi influencer nit yi. si sa produit pour ñu jënd ko donc yaa ngi def ay jeu. d'accord donc yaa ngi looy gagné après ci tabaski bi. te loolu nekkatul yàlla. nekkatul yàlla macha allah boobaa carte lay doon pour carte dafa xaram. carte dafa xaraab mu nekk loo xamante ne lu pertinent la mais ñu ñëw aussi ci ndaw ñi parce que gis nañ ni période bi ñu toll nii dëkk bi nekkatul loo xamante ne day wóor euh, wóorutul plutôt ñu bari dañuy ñëw di di la agressé ñenn ñi dañuy daw di sàcc ay ay alalu nit ñi lépp ngir tabaski bi tey jii nii boo amoon message bi ngay délivrer jeunes yi ci loolu lan lay doon. mooy nangoo liggéey rek ñàkk liggéey mooy ak ñàkk euh, <laughs> yëngal seen xel. waaw xale bi tayal soo tayal lay rek soxla dana la la mm-hmm. soxla la nootee rek. dana la jëf loolu doo xam ne doo ko def da nga ko def sans maîtrise dëgg la donc nag boo yëngalee sa xel mi xam ne waroon noppale ko àddina amul noflaay mhm. doo am jot bay dem di agressé kenn ça c'est vrai parce que man hmm. xam naa ko seen naa ko ginnaaw hmm. daal foofu dëkk naa ko huit ans huit ans ay agresseur rek ay bandi kese laa doon yar hmm. donc nag seen idéologie ak seen mentalité xam naa ko ku am liggéey am naa seize yoo xam ne ou dix seize gannaaw raay def naa ko huit waaw kii kii Dalifor huit ans. Mhm. Fadja huit ans mu ñetti huit ans ñaata waaw ñaari huit ans rek seize ans la beneen huit ans mu ñu vingt quatre ans vingt quatre ans. ah mhm. donc def naa ko ci banlieue bi. les benn les seen idéologie ak seen ay réflexion ak seen xalaat xam naa nan la ba nan la ñuy xalaatee. Mhm. donc yàgg naa ci seen biir te man je suis mhm. euh, damay éduquer damay tarbiya am ay talibé di leen yar di leen dugg si di leen delloo siwaat. Mhm. di com di communiquer ak ñoom jaxasoo ak ñoom xam naa seen idéologie naka la mel. mais jeune boo gis muy def yenn yi c'est parce que dafa amul occupation. mais boo amee occupation boo xam ne da nga xëy war a liggéey am na responsabilité yi gàddu sa yaay ak war a liggéey am na yoo xam ne doo ci dugg parce que da nga am loo xam ne da nga koy xalaat sa ginnaaw. macha allah c'est pertinent ñu ngi ñëw tamit si ñi nga xamante ne ñooy jaay des fois nga gis ñu ànd ay prix yoo xamante ne yu exorbitant lañ xar bu war a jar cent cinquante cent mille ñu yóbbu ko deux cent deux cent cinquante mille parce que gis nañ ni manqué na tey jii loolu lew na wala lewut. jaay moom lislaam moom loolu la ñuy jaayee junni dërëm jaayee junni. jaayee junni. islam yi loolu ñëw ci loolu. yoonam nekku si. li xaraam mooy ngay waat mbaa nga fen. ah comme waat bi. waat naan nangam laa ko dëgg. Ah. yow daal la concerné. yow jënd kii yow jaay. waaw yow bëgg ba jógee rek nga jaay ko mu dem. macha allah ah loolu de leer na moom. kon yi yéen bi bu dee bor nag day indi ay règlement bu ñu la lebee dërëm dërëm nga a fay. waaw ah, bu dee bor la dërëm fayeeku ñaar dërëm ñu ah, ci fayeeku di ci teg intérêt amul mm-hmm. sànq dégg sànq dégg naa la nga wax lu am solo nga ne boo lebee tabaski gis nañ nii situation bu dëkk bi nu mel nii boo euh, lebul moom du ci génn. amoo waay amoo wàcc na la. du farata sunna la. waaw sunna la waaye tamit xam nga njaboot gi. Ah, kër gi société bi loolu nag laa lay wax na la booy dund sa sa sa aada ci lislaam waaw mooy waaye boobu ngay wax. waaye bi. mooy sa aada ci islaam mooy waaye parce que yàlla nee na defal li nga ne waaye yow yaay kan yow ba laaj la sa solution laa laaj la sa position. Hmm. amoo bàyyil. loolu lañ la wax. mais nag ñi nga xamante ne dañoo rabar seen ragal seen jabar yi. moom laa la wax moom laa la wax mooy ba tey yaa ngi duggaat ci cadre bi ma lay wax rek. waaw mooy aada bi rek. nga ñëw soxna si ne la ah yaa ngi nii gis nga dara kiw wu gu fi. waaw mais ba génn ci rek. <laughs> sa yaram <laughs> tas que culture bi moo ko maye moo def loolu. naxante ba génn ci. aujourd'hui qu'est-ce qui fait la force lan mooy def force tey macha allah tey nit boo xamante ne mën nga comprendre société bi. ba tax nga mën a agir de telle sorte que ne tey dama koy teg ci yoon ci sunna bañ a par exemple topp société bi comme ni ñuy demee. loolu maa ngi leen laaj la comme exemple. yow noo koy defee li ma am ci njaboot musuma ci ngénte kenn. waaw wax nga ma musuma ci ngénte sama ngénte di dépenser cent mille francs di jeex. ma toll yëpp macha allah cent mille francs di jeex sama ngénte. te macha allah am naa njaboot comme ci sama kër xam ne man njaboot naa. musuma que dama ne l'islam du noppal ma sama sama jamais. man kay ñëw naa ci kër yi yooyu ñibbi yi ne man ngeen dem moo fi amoon. ay xaw ma ko sax voilà voilà. ci ñibbi. c'est important ñu amul nag ñooy masqué wala ñi nga xam ne comprendre ñooy masqué. mais loolu ci nit la mais tu dois libre. da nga war a participer l'islam dafa ñëw pour noppal ñu. waaw mais l'islam ñëwul pour sonal ñu dafa ñëw pour noppal ñu. mais mais tey moo wax ne euh, euh, euh, dafa wax ne Basiro. wala wala tunasiru mhm. yasiru wala tuhasiru yombal leen bu leen jafeel bégal leen bu leen coupé dama dégg nga ne tu dois être libre mais comment être libre dans cette société là mooy bàyyi nit ñi li am doyloo li nga am tu es boo jëlee li nit ñi am boo buñ ko soxlaa dañuy ñëw jël si ko mhm. te jëloon nga seen yëf da da nga leen di delloowaat seen bor mhm. tu es nga def kon pour delloo leen wala bu ñu xew xewlee nga ñëw pour fay leen seen bor. Mhm. mais bu ñu xewlee bu ñu la laajee nga jox leen boo xewlee ne leen baax na. Mhm. da ngay da ngay libre kon tey jii yow sa tabaski exemple tey boo kii sa tabaski man tabaski damay bàyyi ba jour bi. waaw ot dara <laughs> wala suba gi la suba la. waaw laay ot dara wax diw ak nga xar laa ban ma photo mhm. yónnee ma moo xool woo gam ne waa bi baax na mu ñu dawal édic rek ma jël xaar bu dem yoonu ceeb surtout bu ma xëyee da reer xar bi pare naa ci détail yooyu. Ah, pare nga ci man du daan pas dalle. bu julli jee ñëw pare ci. na c'est fini du ma xamee julli ba ñëw. Ah. ba ñu leen di xamee. waaw kii baaxul sama dafa laaj wat nit ñi rek baal ak fa ba ma lijjanti yeneen détail <laughs> man man toon man caam toon ma noppal ma noppal sama bopp. Mhm. naa seeti samay mbokk danaa nuyoo samay mbokk danaa jaxatoo samay mbokk danaa dimbali samay mbokk. macha allah ñi lu ma mhm. doo yenn loo mënul. du ma ma dugg ci détail yi. waaw ma ko am ko amul du lijjanti mais ñun nag Sénégal jamono ji détail moo ñu soxla. man du ma lijjanti yëfi nit du ma ko toppatoo bëgguma ko du ma xool sax man aw sax xalaat boobu maanaam yàlla nattoo ma sax loolu. Mhm. maanaam man boo amoon ay milliards nekk sama wet comme si que yow jaaykati daal la wala leneen. sama mhm. yàlla ci yow loo bëri bëri bëri xaalis du ma déranger loo ñàkk ñàkk ñàkk tax ma suufeel la. parce mhm. que damay xool yàlla ak jaamam bi jaam bi ak borom bi loolu laay gis ci jaam bi. dëgg la waaw su ma gisee jaam borom bi da la may fàttali. macha allah macha allah dañu gis ni fête bu jotee aussi day impacter trop ci économie bi maanaam nit ñi lu ñu am ak lu ñu ñàkk yëpp lañ koy génnee mais bés bu jeexee nag. waa xam nga loolu mooy ñàkk culture. ñàkk culture ñàkk culture bu baax et puis nit ki dañ ko war a dafa dañ ko war a nit tout le temps dañ war a dem di parta di partager ci boppam ak ay nit ci waxtaan ak moom ay nit ci boppam moom bu ko boppam jaaxalee ndax war a am ñoo xam ne xam ne mu waxtaan ak ñoom. Mhm. ñu recadré waat ko conseiller ko fàttali waaw mais bu fekkee da ngay demee sa xel ñi nga àndal tamit tanewuñ la ñoo lay poussé ci yenn yi te ñoom rek ngay xool mhm. course bi ñoom dañuy daw duñ jeexal te duñ arrêté amuñ jëmuñ fenn mhm. te yow da ngaa am lu la war am loo bëgg ak foo jëm mais doo ànd da ngay sonn dëgg la dañuy dañuy gis ni euh, ma joxe benn exemple bu ndaw par exemple Sénégal tey dëkk boo xamante la nu am am demeewul noonu ñuy gis par exemple ki nga xamante ne benn exemple laay joxe benn jour boo xamante ne Karim Benzema donc tey jii mu ngi ci dëkk naar yi presque lu ñu koy fay par an deux cent millions d'euros mais bu heure ndogu jotoon da koy gis mu sol jàllaabeem même jour korité day sol jàllaabe photo wu heure bu jotee mu teg tàndarma ak kaasu meew par exemple photo mais ñun Sénégal dañoo am tendance bu loolu jotee mu tabaski wala dara jot ñu jël filmer suñu añi dugal ci internet bi waaw ah benn kaas café ak dagg mburu bu amul dara loolu laay lekk. pare nga ci pare nga ci kaasu café. kon yow ñii di ndékkee ay croissant. croissant danaa ko ndékkee souvent. su ma demee ba xel xalaat ko. xalaat ko waaw ma dem jënd ko wala mu yónnee xale yi ñëw ci biir restaurant bi. jëlal la pardon pour pour. waaw. rëcc na may leen ko nga jënd. ndeysaan. du ma ci lekk ba xaabaabal. waaw. damay def lu parce que man dama bëgg maanaam wér yaram yaa koy dëgg la mais comme li ma léegi euh, dañuy dem ba toll foo xamante ne sunu téléphone yi moo ñu sonal ñu xëyee fajar vidéo sunu lekk yi. vidéo ngoon si waaw xam nga kii dund. Ah, mais pas ñuy xam mais société am lu ma wax la xam nga man je comprends beaucoup de choses. ñëwal ñi ci loolu. voilà parce que nit ki nga xam ne il vit dans dans ce milieu. waaw mooy sinapeur yi. waaw bu deful loolu day dee waaw loolu dëgg la. donc il est obligé mu def loolu parce que ci loolu lay dund. Mhm. ci loolu lay vivre foofu lay amee li muy am fa lay gagné vivre. Mhm. mais te technique la système la du wane wu du tiitaru mais businessman la idéologie wala xalaatam moo ñëw mu xalaat dara imposer ko société bi pour mën ci jaar pour réussir. dëgg la àddina am a dans vie. Mm-hmm. moo tax muy wane boppam di publicité dafa am ñoo xam ne da ciy business. ndeysaan il est obligé mu def ko. waaw mais koo xam ne yow ci gaañ di dans ça. Mm-hmm. mais am nga leneen loo war a def nga dem defi la. c'est pertinent bu fekkee ne comprendre nga société bi léegi àddina bi fu mu toll. Mm-hmm. bon tu dois tu dois obligé nga comprendre na ñoo xam ne dañuy tëw vingt quatre heures sur vingt quatre ci ci TikTok. ci TikTok waaw. mais ñoom am na loo xam ne mën nañ ko mais yow mënoo ko. dëgg la parce que ñoom TikTok da leen di fay. waaw dañuy gagné xaalis bu bari. Mhm. boo leen ci seetaan ak boo abonné. dëgg la mais mais yow boo doon yendu suba ba ngoon ci TikTok TikTok du la fay parce que fii du TikTok du fi fay. du fi fay de. donc kon yow da war a dem defi leneen. macha allah nga nga bàyyi xel sa temps. Mhm. wa bu bu dee da nga am ay boutique yooyu jaay wala am ay vente yooyu def ci TikTok gaa yi gis la ak say clients. te mhm. tu es tu es obligé macha allah macha lu am solo aujourd'hui ban message ngay jox ñi nga xamante ne peut-être euh, ñoo war a dimbali ñi am war a dimbali ñi nga xamante ne amuñu. mooy xool yàlla rek. xool yàlla. yërëm xool yàlla te xam ne joxe. Mhm. du du tax a ñàkk. joxe du tax a ñàkk. tax a ndax bu doon joxe day tax a ñàkk yàlla du wax ne ñiy joxe seen alal. Mhm. maanaam dafay mel ni kuy ji <coughs> pepp ci suuf. Mhm. maanaam ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal. Mhm. dañuy dundale seen alal ci yoon yàlla. Mhm. yàlla mu ne mu ngi mel ni ku jël grain dugal ko si suuf pour mu sax. ndax mhm. benn grain ngay dugal bu saxee day nekk ay milliers de grain. ay yaa ngi dégg. des fois sax mu dem ba doo ko mën a compter. dëgg la donc ñu xam ne joxe day yokk alal. day yokk alal waaye du wàññi alal. du wàññi alal. c'est dañu dimbalewante ndax nit ñi jullit ñi dañoo war a dimbalante. da war a dimbalante macha allah ban message aussi ngay jox jeunesse bi ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey di daan doole di def tout pour réussir seen vie aussi. mais di épargner wàññi seen soxla tey yokk seen effort. épargner épargner wàññi seen xaalis. Mhm. wàññi seen ay soxla yi nga xam ne dafa inutile. d'accord c'est soxla yi nga xam ne soxla yu utile la. utile wala inutile bi ñu koy waxee. waaw utile dafa am utile am waaw lu utile nga def ko xam ne amul benn sens. waaw nga bàyyi ko nga xam ne yu utile la mënta ñàkk la. waaw nga nga kii ko. nga def ko nga def ko. macha allah te mm-hmm. te ay déplacement yi nga xam ne doo ci gagné. Mm-hmm. maanaam booy dem place day fekk place bi ngay dem. Mm-hmm. da nga fay gagné dara foofu. macha allah mais bu da ngay dem rek pour dem ci perdre ton te temps dafa cher. waaye le temps est précieux. voilà léegi nag temps dafa seer léegi nag booy pensé temps boo ko amee tax defoo dara nga toog di xalaat sax loolu bul foog ne yaa ngi nekk. Mhm. yaa ngi perte mais fekk na yaa ngi daw ay yoo xam ne. Mhm. xamuloo ko. ndeysaan moo tax les penseurs dañu fu ñu toll ci niveau fu ñu toll ci gis-gis ak alal ak investissement bi. Mhm. dañuy xalaat dañuy xalaat. donc toog di xalaat. moo gën dem di doxi loo xam ne amul sens. dëgg la foog di xalaat même ñàkk xel mu dal. pour mu dal xalaat moo la koy may xalaat moo lay may solution boo mën a bu sa xel mën a dalee. waaw parce que boo xalaatul solution buy dalal sa xel da ngay tëñax tëñax rek. da ngay tëñax tëñax moom. te tëñax tëñax yu soo tax day yokk problème. dëgg la moom. donc il faut ngay penser sa bopp ngay am jot di xalaat sa bopp. waaw waaw. il faut il est obligé parce que boo amul vision. Mhm. boo dul xalaat. nooy mën a régler sa société nooy mën a régler sa programme nooy mën a ah suivre sa ay activité doo ko mën a def de a def dëgg la de donc tu es ngay xalaat ci sa bopp effectivement donc nit ki dafa war a am jot ci boppam macha allah nekk na lu am solo ah, gis ngeen tey lii leen leen andiloon ci waxtaan mais xam ngeen duñu dem te duñu wax ci bio naturel produit bi nga xamante ne macha allah ah am na solo bu baax a baax a baax te moo ñuy may sunu émission yi ngi gis yëpp ci MTC lan nga ñuy wax ci produit bio naturel yi nga xamante ne am na solo am am si na ay euh, produits yu baax yu xam ne ci wàllu santé la yu jëm ci wàllu mhm. cheveux yu jëm ci wàllu fatiguement général ñi mhm. nga xam ne ñu am problème mu articulation mhm. ay douleur ñu ñu am nañ ba frotté bu ñu liggéey bu efficace efficace boo xam ne mu nekk noonu nga xam ne dañ ko inséré ci macha allah léegi frotté bu frotté bu am solo la bu baax am na si ay savon yuñ liggéey yoo xam ne day dindi insomnie. waay day dindi cat. day dindi cat day hydraté sa ba pare jox la teint bu rafet voilà teint bu rafet la lay jox. ah waay ah, day di peau grasse di dindi. bien-être acné day defar yëpp. macha allah donc euh, am na ci ay traitement yu efficace yoo xam ne mm. wàllu hémorroïde wala ndoxu siti wala impuissance sexuelle macha allah yooyu yëpp nañ ci ay produits ak ah. bu am bu baax bi ñuy defar cuuraayu lii lumu bi waaw nga xam ne day dàq saytaane mm-hmm. day dindi cat day dindi liggéey day dindi umu day dindi tëju macha allah démb rek am na ku ma o ne ma mm-hmm. vraiment bu ma ñëwee Sénégal mm-hmm. ñëwoon sa kër nga may ma ci cuuraay bi fan yi affaire bi dafa dëggaloon waaye bu ma ko laajee affaire yi ubbeekuwaat na. ubbeeku. ma ne ko ah ma taxoon may la ko ma ne ma maa ngi lay remercier di la gërëm bu baax ci affaire bi. ndeysaan mu ne ma sama jabar sax yàlla dafa dogaloon fan yi mu xawoon tawat waaye bu ma ko ci laalalee rek la nekk. ku ko ku ko ku ko ñamul. waaye boo xam ne ku ko mos doo ko bàyyee. du laay. dafa efficace dafa baax dafa am doole. dafa efficace dafa baax. waaw dafay ubbi wërsëg dafay dindi cat dafay dindi liggéey dafay dàq saytaane. dafay dàq saytaane. waaw cuuraay bi baax na trop. Mhm. waaw moo tax loolu daal bio naturel am na yeneen nag yu ci nekk. yoo xam mhm. ne bu ma ci contacter boo wax rek man ñu waxal la ci yeneen. incha allah yeneen maladies yi mal des maladies. Mhm. pas mal des maladies incha allah. ah donc comme ni ma ko waxee à chaque fois rek euh, bio naturel dafa ñëw pour euh, jouer rôle li nga xamante ne ci société bi la donc euh, malgré lépp li nga xamante ne am ngeen ko mooy ci wàllum feebar boo leen ñëwee foofu noonu donc tey jii nii boo ñëwee donc bu nekkee dara dara dal. ah donc mën nga ñëw jokkoo ak ki nga xamante ne muy sëñ bi numéro yëpp mu ngi noonu di affiché wu donc yow mii nga xamante ne boo ñëwee wax sa problème donc dinañ xool tey jii ni la ko mën a fajalee donc maanaam tey am na ay système de traitement yi ne am na donc ñi nga xamante ne déjà am nañ yenn jàngoro ba nga xamante ne euh, am nañ tey jii euh, jafe-jafe ba gisee ki nga xamante ne muy Cheikh Amar Diop li may wax nii xam nañ ci dara donc ñoom tamit am nañ ci satisfaction à 100 pour cent donc yemul foofu rek am na li nga xamante ne tout ce qui est bien-être donc ku wax bien-être wax tey jii nii ay savon wax tey jii li nga xamante ne pour ay cheveux donc nga xamante ne nit yi dañ koy soxla à chaque fois yëpp tey jii nii am na fa ah, ne des ngeen am ay fatigue musculaire donc yooyu yëpp tey jii am na ci donc lépp li nga xamante ne day musal nit ki tamit ci des yenn yu bon yi comme li mu wax sànq cuuraay bi mu ngi fi donc boo leen ko utiliser rek émission comme nii la woon comme ni ma leen ko waxee semaine prochaine aussi dinañ ñëwaat ci wàccaay tabaski bi à chaque fois plateau yi dinañ ko ci gis te ñu àndoon ci ki nga xamante ne muy euh, Cheikh Omar Diop ñu ngi lay euh, sant di la ngërëm donc lan ngay tàggoog suñu téléspectateurs yi. mais wax na yàlla yàlla yombal tabaski bi yàlla yombal xewal gi. Mhm. may xaalis may jàmm. Mhm. Sénégal yàlla saxal fi jàmm naataange yàlla yokk xewal gi. Mhm. Euh, am mbégte ak ak yow ay questions yu am solo ngay laaj. Mhm. ñu soxal société bi te loolu lu ñuy xaar ci la. Mhm. di ñaan yàlla jàmm. Mhm. di leen wax ne scène bi léegi. dañ ko élargir. dañ ko yaatal léegi. dafa am dina am yeneen émission yoo xam ne. dina ñëw dina ñëw. programme am dina am programme bu bu baax. ak contenu bu dëgër. Mhm. boo xam ne incha allah nit ñi dañ ci gis seen bopp ci facette yëpp. Mhm. man dinaa ci am benn part boo xam ne woon moom sama communication foofu lay féetee. ndeysaan euh, mooy jëm ci firi gént ak mhm. waxtaanee alxuraan. ak yenn xam-xam yi ñoom bu ñu ma soxlaa ci plateau yi damay ñëw si seen ay émission macha allah mais man am naa sama plateau spécial. après dinaa leen ci invité ngeen di ci ñëw mooy firi gént bi. firi gént ci biir MTC la nekk. macha allah incha allah ñu xam ne léegi daal. plateforme bi dafa changé. Mhm. dañ ko gën a yaatal. dañ ko gën a yaatal MTC ngi noonu te di di waajal ay surprise yu am solo xaar leen ko rek. bu ngeen abonné nag bu baax bu ngeen abonné incha allah dara du leen ci raw. Ah. activer cloche de notification bi abonné activer cloche notification bi. ñu gis ami donc boo leen ko defee rek incha allah yéen tamit lépp li nga xamante ne bëgg ngeen ko rek dina leen ko andil donc ni ngi xaar tamit seen suggestion en commentaire parce que ñun lépp li nga xamante ne suggestion la rek dañ koy jël pour euh, lépp li nga xamante ne mooy améliorer sunu liggéey jërëjëf Cheikh bi donc li nga fi wax am na solo bu baax a baax xam naa semaine prochaine incha allah dinañ ñëwaat rek ci beneen jotaay bu mel nii ci wàccaayu tabaski bi waxtaanee ko di gërëm buubu bi nga xamante ne moo nekkoon euh, ci caméra bi bi mbokk yi ñu ngi leen di di leen jox ni daje ngeen jëf